mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee ak programme 5 TV saa su ne tey nag ma ñëwaat ak yéen defal leen décortique série Soie euh, tey mu yem ak épisode 37 bi dañu koy door ak séquence bi nga xam ni moo dox ci diggante euh, Delia ak jinne bu jigéen bi nga xam ni mooy sàmm Sangomar euh, moom nag daa ñëw rek pour defaraat diggante Sangomar ak Delia ci loolu mu xamal Delia ni ko Sangomar moo la mën a sauver ci li nga àndal ndax Sangomar ci boppam li mu àndal moo koy sauver te it mooy sauver képp koo xam ni rek ànd nga ak moom euh, ba tax mu ni ko na daal di dellu ak moom euh, ndax bu delluwaatul ak euh, ki nga xam ni moo di Sangomar avenir am moom Delia dootul baax te nag kenn dootu ko bëgg loolu nag day dëgg rek li Delia mas di wax ci digganteem ak Sangomar ndax daa mas ni Sangomar mooy ki ni moom moo gën ci moom te moom rek moom moo ko mën a génnee ci li mu nekk kon tey ji Delia waxu nit yi rek moom moo taxoon mu daal di koy euh, bàyyi waaye moom xamoon na ni euh, li mu àndal euh, du koo xam ni rek mënal na dara ki nga xam ni moo di Sangomar ba tax na nag nangu na rek ngir dellu ak moom ñu jàll ci beneen séquence te mu dox ci diggante Sangomar ak princesse janaa ñoom ñaar nag ku nekk rek am na lu muy yëg ci moroomam waaye mel na ni li ñu naan jaam ak pexeem yàlla ak dogalam moom moo am ci seen diggante ndax Sangomar tey jii li ko Delia bëgg nek nekk ak princesse Diana waye princesse Diana loolu la comprendre ndax xamna ni Sangomar da ko bëgg utiliser ngir fajj mer bi mu mer rek ci digganteem ak Delia ba tax mu ni ko sunu digënté du mëna a nekk ndax da am keneen euh, ku muy bëgganteel té da koy waja euh, tak waye Sangomar xamal na ko ni euh, du ko bayé nonu ndax ñom ñaar bëggante nañu té yi da ko bëgg jël soxna té yi da bëgg am ak mom njabot waye li Sangomar bëgg lolu yaakaar rek rek du meuna nek ndax jana da joxe kaddom euh, ba pare euh, te yakarna nit mom euh, fu mu rek da war di sammu kaddom mu melni delia meuna amat sens ci bu ci waté ci sangomar waye sangomar nek na ko xamni fulla ak fayda moko sonal te du yomb rek muy balat delia ndax limu ko miti da ko metti batay te lolu sax lañu gis bi nga xamé ni delia ñëw na seetsi ko ngir rek ñu delluwaat ci jamm ndax dani Euh, duma wëccu rek ba paré di ko té da nga ma humilier toroxal ma sangomar gis nañu ni ku yëg bopam la té yit ku reuy la euh, ndax bu doon euh, keneen la dina xol ci mbëggeel gi nga xamni mom la am ci delia té nekkat ak mom ndax ba tay ji rek mo ngi koy bëgg mu melni du yombaat pour ñom ñaar ñu daldi di ndax delia itam fulla ak fayda lay démé té momi té bëggul rek kenn ku koy toroxal wala kenn ku koy ñàkkal fayda ba tax xamal na sango Ngomar niko ko bu ci sa buntu kër gi rek dootuma fi euh, dugaat kon yaakar na dina jafé torop pour ñom ñaar euh, ñuy daldi euh, nekkat waye nak bu fekkee ni ñom ñaar seen digënté yalla tuddu nako ba pare yaakar na rek bu joté kenn du ca man dara te yi nak lu yomb lay doon ñu jall ci benen séquence saint louis ak dabi nak taxaw nañ taxaw nañu tém ngir taxawu ki nga xamni modi sangomar ndax nenañu ni muy comporté wo ak nijaayam Euh, dañu ko rek xabtal euh, ba dabi nag euh, moom li mu jàpp ni Sangomar daa nekk ak jabaram Flora loolu moom moo ko bett te it jaaxal na ko torop loolu nag tax na ba saint wi ni ko sa jabar boo bëggee rek am jàmm libéré ko te xamal ni bu nekkee ak Sangomar itam du ca am ndam loolu nag tax na ba saint wi ne dina jóg ci Sangomar ngir xam lan moo tax rek muy comporté woo noonu séquence boobu nag li ñu fa mën a jàngee rek mooy nit amut dul mbokkam ba tax ku nekk rek war nga fonk ñi nga xamni ñom la la yalla bolel te ñuy say euh, mbokku deret euh, ndax tay ji sangomar ak limuy tek saint louis euh, bu doon keneen la wala bu doon jambour la da koy bayyi aduna ak alakhirah waye tay limu nek deretam di nijaayam motax beggu ko bayyi wala nak mu koy jappé nit ku bon waye japp na ni rek dañu ko xaptal loolu nak mbokk rek mom moo koy def ndax moy xol li nga xamni ni gëna rafet wala li nga xamni ni moo gën mu koy wax ci moroomu mbokkam ñu jeexal ak séquence bu mujj bi ñu gis ni ki nga xam ni moo di Nabouza lenn rek moom moo ko yitteel te mooy diggante Delia ak Sangomar daal di yàqu ba faawu ndax gis nañu ni bi Delia bàyyee Sangomar ba tey da koo jege di ko euh, taf si boppam di ko won ni da ko bëgg te it da ko yërëm ci li nga xam ni moom moo ko dal loolu lépp nag da ko doon def rek ngir bañ euh, Delia daal di dellu ak Sangomar waaye nag du yërmande eh, si li ko dal wala bëgg koo jàppale moom moo eh, taxoon loolu sax moo tax bi ko Delia waxee ni seetiwaat na ki nga xam ni moo di Sangomar ngir ñu dellu dajee daal di mer ba futtu loolu nag tax na rek yaa xam ni eh, Nabouza bëggu ko te it bonooram yitteelu ko Delia nag rëccu na bu baax a baax li nga xam ni defoon na ko te mooy delloo Sangomar bàgg de fiançailles bi ndax tey jii li muy dund yépp loolu moo ko waral ba tax nit bépp décision boo xam ni yaa ngi koy jël euh, da nga ko rek war a jël ci sa coobare bopp te bañ cee su bañ a sukkandiku ci li nga xam ni moom la nit ñi di wax ndax tey jii Delia bu déglu woon xolam euh, li ko dal rek du ko dal euh, ndax xolam doo du ko doon mos a wax rek muy bàyyi ki nga xam ni moo di Sangomar ndax mbëggeelam ci moom sori woon na torop kon boo ko internet yi nañu leen topp rek ba xam fu wànneen di mujj rekk gëtam waaye laata boobu wéyal leen di abonné ci 5 TV te bu leen bi ndax di jot jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf et à très bientôt incha allah.